li sëriñ si wax di yéen journaliste yi yéen ñu koy sant lépp lu nu war a wax daan ca wax te nañu ko war a waxee lañ koy waxee président de la xam ne ci dara te nu wax ak moom ba ne ko du ñu génn taxaw ci mbedd naa leen wax nu ñu lii wax nañu la dugg nañ fi dugg nañ fa yéen yéen a doy di mais ñun doy di wuñu yéen journaliste yi du ñu nekk seen otage du ñu wax ci seen xalaat duñu wax ci xalaatu benn sénégalais suñu xalaat la ñuy wax bu nu gisee lu jaaduwul danañ ko wax te nañu ko waree waxal lañ ko wax Abdoulaye Wade moomu nu jënd nu mënuñoo jënd amul suñu prix waaye bu defee lu baax ñu wax ko bu nu def ndax koo xam ni su la defee lu la naqari nga wax ko soo dee gor su la defee lu baax yow tam wax ko te bu nu defee lu naqa dén tax fii ci rajo bi dégg ko ba tey ñu ne nangam d'accorduñ ci nangam deful nu ko nangam d'accorduñ ci kon bu defee lu baax it ñun def na lu baax da ngeen da ngeen bëgg nag yéen ku def lu baax ñu xas ko ñun loolu du suñ mbir ñun ku def lu baax day naan def na lu baax defal na lu baax ci gàmm gi def na ni mu war a defee taxaw na ni mu war a taxawee dañu koy wax wax ko sëriñ bi mu gërëm ko ñaanal ko li ci des nag suñu yoon nekku ci mais na leen wóor ni duñu nekk seen otage amul benn nit bu mën a def pression ci ñun ba ñu waxal la li la neex li ñu neex la ñuy wax te li ñuy wax xam nañu ko nous sommes des responsables noo leen raw noo leen dàq jàng ñoo leen ëpp xam-xam jàng nañu diine jàng àdduna li ngeen di tiitaroo ñoo leen ko ñoo leen ci raw fuuf bi dee journalisme jàng nañu ko xam nañ ko xam nañ ni koy defe bu ngeen bindee dañuy ree di jël di ko décortiquer di wax fot yi ngeen fot juumte yi ngeen juum li ngeen di bind ni mu bone yooyu yëpp xam nañ ko kon ngeen xam noo leen raw ba nag jàng diine te jàngu leen ko nag may leen nu jàmm nag may leen nu jàmm may nit ñi jàmm yéen nga bëgg rey réew mi yéen ngi tas réew mi ci ay fen barki démb président ñëwoon fi ñu taral ko nga bu rëy sëriñ bi taral ko ànd ak njabootam wax ak moom wax yu ñu biir seet ñu xëy ñu ni tiwaawoon dañ ko fa yuuxu day mel kàcc kese kàcc ma ne xanaa geneen tiwaawoon waaye du tiwaawoon ba alaaji Maalik de ma leen xëy na beneen Tiwaawan lañ ko doon yuuxoo waaye du gii de fii kii kenn du fi yuuxu président de la république bu defoon lu bon sax bu ñëwee duñ ko yuuxu ndax xam nañu garaatam na yéen di xamul garaatam bu ngeen yóbboo lu leen neex ngeen wax ko ngeen yóbboo lu leen neex ngeen wax ko ñun duñu wax ci kaw di wax ci suuf mënuñu nuko, mënuñu ko li nu li nu li nu xam rek la ñuy wax su ko defee nag kon loolu yéen journaliste yeeg waxkat yi ci mbedd meeg ñiy téléphoné di laaj nangam xew naag lu ngeen ci wax la wax du ngeen nu ko jàngal da ngeen nu may jàmm bu fi kenn téléphoné ti dinu laaj na ngeen ko xam bu baax a baax a baax su ko defee nag kon sëriñ biloo rek laa la doon leeral ni daal li nga santaani woon yëpp def nañ ko ñun nga yabaloon ñu doon deme ak dikk maag sëriñ Mbay lii am na ci loo xam ni sax mon maa ngi woon ci ci réew waaye ba mu jotee moom ñu laa téléphone moom sëñ Babacar Si ñu ko demal nga toppatoo ko ndax maa yow daan ànd di ko toppatoo tey maa ngi biti réew duma mën a ñëw moo dem wuutuma fa te doxal na mu ko na mu gën a rafet